par rapport ak procès nga xam ne suba la war a am buñ wax wax nga li waxoon par rapport au procès mais waxaat na leneen aussi ne woon na tant que mënuñu assurer kaarangem du dem euh, wuy ji yoon wuy jit yoon mu nekk benn désobéissance boo xam ne euh, tàmbali na ko déjà di ko di ko wane loolu noo fekkee ni kaaraange rek la fii kaaraange mën na sëkk bu fekkee ni wuyu tribunal la chaque jour ay sénégalais dem na wuyu tribunal te ci kaaraange nañu fàttaliku itam non nañu fàttali non a parce que fii c'est pas la première fois qu'un citoyen sénégalais est convoqué devant le tribunal bu fekkente ni citoyen bu nekk bu ñu la convoqué sénégalais nga ne suma sécurité benn citoyen dootul wéeti bokkuñu aussi il faut pas comparer le waxuma loolu xam nga am ah, Mamadou man comparé kenn kenn citoyen citoyen la mhm. bul ñu jàpp ne citoyen lambda dafa am des catégories de citoyens citoyen yëpp citoyen lañ c' est pas parce que tu yaa ngi parti politique ou bien professeur nga ci jàngale ou bien journaliste nga ngay am yenn exception mhm. amul benn cest à que citoyen citoyen tey man mi fa ma toog nii su ma yoon soxla woon lii nii émission bi dama koy arrêté ma dem wuy ji yoon loolu mooy loolu mooy nekk dans un état de droit mais mënuñu nekk dans un état de droit ku ci nekk di wax ne samay particularité samay sécurité c' pas ça mhm. avant di wax sécurité mu dem yàgg mu mu def un glissement sémantique. dem civique. te malgré yaa ngi wax loolu ki désobéissance civique bañ la attee dem nga cassation. Mhm. mooy nax sénégalais yi mooy nax sénégalais ba pare désobéissance civile parce que xam nga ne désobéissance civile c'était beaucoup plus grave te force yu nga mën a mobiliser xam nga ne mënatoo ko mobiliser yow nga oote à ton niveau désobéissance civique. Mhm. te man gisuma ci àddina ku mën a oote désobéissance civique parce que désobéissance civique devoiru citoyen mu ne citoyen seen devoir bu ñu ko def amul réew bu ñu koy ñaanee même dans les dictatures les plus sanglantes amul kenn kuy oote désobéissance civique ma ko dégg parce que parce que on est ah. aussi dañu waxante dëgg Sénégal il foo que nit ñi am la responsabilité de leurs actes quand vous posez des actes quel que soit lu mu metti da nga koy assumer parce que assumer devant ta conscience assumer devant ton peuple moo bañ moo gën nga jël xale yi de la chair euh, euh, bi mën na am ay parce que ñoom yaa ngi koy wax sànq. mais xëccoo amagu fi. Euh, bon suba mooy procès bi état dafa gu dara parce que aussi yaa ngi koy wax koo mënti doon bu la woowee da nga war a wuy ji yoon. donc bu état toppee loolu dafa war a wuy ji. bu état bàyyee nag ñu état dana faible. donc dans les deux cas est-ce que c'est pas risqué. pour pour le citoyen sénégalais non peut-être que yow da wax état dans le sens large. oui mais fi mbir mi du mbirum Ousmane Sonko ak état dafa nekk mbirum Ousmane Sonko ak Adji ci kanamu àttekat yi. la justice. justice justice bu la soxlaa am na ñaari façon benn bi mën na soxla sa teewaay. Mhm. bu ko soxlawul moo xam ni soxlawu. bii teewaayam c'est nécessaire. waaw man xam nga waaw man dew ma dans le fond. loolu dama ma dans le fond dama bëgg rek yem ci foofu nga xam ne foofu lañ ma yemloo ci yoon. d'accord ci yoon dama ni attekat bi mën na am ne soxla naa ko bu ko soxlaa attekat bi am na jumtukaay yoo xam ne mën na ko jëli attekat bi waxtu yi mu ko soxla jumtukaay bi ko jëlee ban waxtu la ko soxla xaw ma ko. foofu nag laa lay interpeller parce que boo utilisé jumtuwaay yooyu noonu dem jëli ko conséquences yi la ñuy ñuy ragal jamono ji bu ko utilisé nag aussi boobaa fekk na état tëdd na. ci ah, suuf non yaa ngi ci ay supputation. non mais ñaar yooyu benn la ciy doon la ciy doon xam nga juge moom xam nga juge juge am loi yi intime conviction. xam nga ci procès bi ci mbir mi dañu am na ñu bëri naqaru nañ lu tax ñu ne ah il est prévenu sur une affaire criminelle affaire de viol te euh, defuñ ko en détention am na sénégalais am na ay juristes yu posé wu question mais man damay jàpp ne juge buy àttee toujours dafa am fu mu koy teg loi et règlement mais aussi intime conviction ak aussi naka lay def ba nga xam ne décision bi parce qu'il rend la décision au nom du peuple sénégalais entrer à la satisfaction du peuple moom lay moom ci décider. Mhm. donc pour man il y a pas encore de choses à dire sinon il y a des gens qui font de la politique. waaw niveau de politique cinéma mais d'ailleurs je constate à quel point certains hommes politiques sont cyniques.